àdduna yëpp dañ gën a mën a sax ci liggéey Sëñ Tuubaa noonu la dañ ko def ko njëkk dañ ko def ko ci dugub na xaalis bi ñu wax ci lettre bi dañuy wax ne fàgg sëñ Mandoumbe ci njiitu sëñ Ibrahima Mbacke ñoo andi seen liggéey mu toll ci quatre-vingt-huit millions sept cent vingt-cinq mille ak vingt vingt-sept tonnes dugub sëñ Ibrahima Mbacke mi ngi lay nuyu di la seer mooy njaboot gi ñëpp ñu ngi lay ñaanal gërëmul sëñ Touba waaw waaw sëñ Ibrahima Mbacke te doon sàpp barab boo xam ne mën na faa def daal di sëriñ Mandoumbe fekke naa fa juma yoo xam ne day seere sun santu sun sun santu santu sëriñ ma numbe ci taxawaayu sëriñ Tuubaa Mbàkke ci lislaam lii nag ànd nañu ànd na ci njaboot gi mi ngi sàkku ñu ñaan ko ci ñaan yàlla ñaanal njaboot gi asalaamaaleykum jëf ji gis naa ko bu baax. mu ne ni mu demee jëf ji gis na ko bu baax a baax. mu ne réy na ci moom bu baax. waaye nag. mu ne waaye nag. mu ne mu koy seer.